maa ngi lay bëggee l'américain mais maa ngi lay siyaar ba am nga jàmm waa taw feex sant bu baax dama la dégg nga wax benn wax nga ne Sénégal Balla Gaye rekk fii mbër lool foo ko teg yow it parce que loolu moo am nu mu amee yéen ñii boo leen doon woon ay journaliste di ngeen ko xam champion la Balla Gaye ndaanaan la moom rek mënta doon mbër ci làmb ji ñaata licencié fi ne mais parce que bu amul combat ko làmb ji du yëngu hmm. waaw loolu tax nga wax li nga wax boo amul combat làmb ju du yëngu Balla bu bëriwul làmb du neex kon làmb ci loxoom la ne tey fu mu nekk nii démb joob saa dañ fa waroon saa yu làmb amee fotoom lañ fa war a def mu am combat mu amul combat fotoom ak mbër buy mënti bëri nag. fidélité bi seen diggante. parce que xolam moo rafet mu yéene ma jàmm su ma waxee erreur mu woo ma dal sama kaw su ma deful lu dul yoon mu woo ma dal sama kaw loolu mooy mag loolu mooy fierté. mais nit ñi ngay dugal nag di seen ab ay nit di leen dugal di naan ay soppe Balla ay fans Balla Gaye yan nit la noonu. xam nga ñu ngi ko def. mais ñi ma dugal ñëpp ay soppe Balla Gaye la. Lamine ak Babacar ko def bii. yéen da ngeen a bëgg ñëpp bëgg Balla Gaye bëgg keneen ak keneen ak keneen ak keneen da ngeen a yamale mais nag man sama ruubation xam ngeen ko foo leen toog foog ma ruuba leen. ñu jaxase jaxase. doo koy buuse. ketchup ana ketchup ga. non fu mu nekk nii moom gàmmu gi la wax ketchup bi nañ ko jël téye ko ne le. waaw. acca na Lamine bàyyi nga bëri. des na si Balla gay 2 bu ko neexoon tey mu bëriwaat. bés gabati nga forme bu bëre ah laaj ko gaa dañuy raxas seen loxo yi xaj ci korosé dóor ci ngaam de ba tey maa doole ma doole di dóorante bi suuf si dóorante tey la gën a neex attan nga suuf si gaa yi dóorante bu baax a baax loolu am na solo Ketchup a ngi noonu léegi nag lamin maa ngi lay nuyu di la ziar delloo ziar Babacar di nuyu di nuyu tamit ñuy suivre le TV ñu ko séqee yaakaar naa bi mu bëri ak Modou Lo seqi woon nañ ko noonu école 16 géejawaay tey nag ñu fas yéene waxtaanaat ak moom waxtaan ak moom surtout nag ci digganteem ak Aziz Ndiaye wala boog waa kër baay Aly Ndiaye waaye dinañ waxtaan ak moom ci làmb ndax kenn mënul toog ak Balla Gaye te doo wax ak moom ci làmb ndax gars yi bari nee nañ ba mu toogee ba léegi bëriwul ci la làmb ji xaw a fa naqare dinañ ko laaj lool secret yooyu lan la mayu yàlla la wala moom moo moo forcé affaire yi ba loolu dal ko danañ waxtaan ak moom daal ci làmb ak lépp ak àdduna daal. du mën a ñàkk lamin noonu ko Lamine waxee Omar ñu ngi lay nuyu di la ziar di la wax ahlan wa wa sahlan dalal ak jàmm ci gàmmu gi. waaw ñu ngi lay nuyu Babacar ak lamin yëpp eh, di nuyu Sénégal yëpp di santaat yàlla bu baax di jëli sant bi sallallahu alayhi wasallam di santaat sama ñaari waajur di sant sumay waajur yu baax a baax a baax rawatina staff yëpp. ak euh, suñu papa Baye Ale ak mère Khoudia Diop ak Baye Ndiaye ak euh, Kor Ndiaye ak Masata famille bi yëpp daal rawatina suma xarit suma mag suma wëlëre euh, muy Aziz sama papa suma lépp vraiment di ko ñaar yàlla jàmm ak Mbaye Diop Talla Mbengue Modou Fall waaw am na solo mais man fi muy dugg lami directement rek moom moo ko wax ñu ngi Tiwaawoon ñuy profité di ñaanal xalifa bi sëriñ Ababacar Sy Mansour yàlla na yàlla guddal fanam te wéral ay cëram parce que gàmm la ñu wax guddi yonent bi sallallahu muy tey yaa ngi dégg suñ ko waxee nag yaakaar naa xel yi day dem ci li yàlla waxoon rek ku ma bind Moustapha tax luy tooy wala ngay dox wala ngay woo ko dund nabee tax ñu koy màggal bésam tey ci Tiwaawoon loo njëkk a yëg si loolu waaw bu ba ñu yàlla fekkee ko muy guddu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam du guddi gu am solo di ñaanal xalifa bi mu yàgg fi lool te wér njabootu Serigne Touba ñu yàgg fi lool te wér maam Bou Kounta man Limaamu Laay Baay Ñas ñëpp rawatina nag guddi gi nga xamante ne mooy guddi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, ñëw gi ñu fi ñëw tey nag mu doon ñëw mbégte ñëw xol mu sedd rawatina aussi tamit euh, waa géej waay yëpp maa bu ñëw xaritu Aziz yi yu bàyyi donc ak fu ñu mën a nekk ci àdduna waa Tivaouane ñu gis Aziz vraiment lu baax li muy def euh, moo tax tey ñun ñu gën fee teg suñu jàng mu nekk suñu kilifa nag nekk suñu lépp tamit vraiment ñëw fii war nañu ndax tey boo gisee buuse mii bàyyi na léppam ñoo fi te géej wàll dëkk muy li ñuy wax rek nit bu la yëgee da nga koy safoo te Aziz nekkul làmb moo ñu boole. du daray làmb moo ñu boole làmb daf ñoo fekk mais ñun fekkiwuñu làmb kon donc vraiment loolu mbégte la su ñun mbégte la ci man mbégte la ci doomu géejawaay yëpp li Aziz di def vraiment mu dëkk géejawaay waa géejawaay dañuy am fierté xam ne seen doom moo dëkk géejawaay di def lu baax li ñëpp ci kontaan rawatina nag àdduna vraiment euh, ci cari xeseex ñu gis si jéego yu ci def Pastef yi mu ci def di ko ñaanal yàlla daal yàlla suturaal ko aar ko sàmm ko fonk ko. fi may ñëw Lamine ak moom mooy sa diggante ak famille boobu parce que ba ngay commencé ba tey yaa ñoom ba fi mu nekk nii yaa ñoom lu waral diggante bi dëgëraay boobu lu ko indi ba tey affaire bi di continuer di dem macha allah. waa xam nga dañ boo amee kilifa dafa am solo comme benn jour ma bëree. ñàkk combat roi de arènes coow li bëri lool lool lool lool xam nga rek ñaan lu munta am moom lu munta ñàkk faa moom sama papa woo na ba mu ñëw mu ne ma Aziz mu ne ma mu ne ma biyoo nga fonk baax ma ne ko lu tax nga wax loolu mu ne ma li muy sonn man mii di sa baay sax duma sonn ci yow donte maa ngi sonn waaye man mii di sa baay moom lu muy sonn doo ko moom moom moo ma nettali kenn nettali moom kon ma xam ne su ma waxu baay dama koy fonk euh, yàlla tey boole ñu ma boole ma ak Baye Ndiaye suñu papa tamit Baye Ale fii lañ toogoon ba ñuy kër gi doog euh, pare mbooloo mi toog ñu ñëpp toog mu ne Aziz bis ki tey bàll mii dama ko jël teg ko solo loxo ci làmb bëggatu bëggatuma gis moom lu ko métti donc moo tax ak suñu yaay vraiment famille daal famille boo xamante ne famille bu suudeelu la doo xàmmee kii kii lii la kii lii la kii lee la ñëpp ñu bokk ndey dox nekk ay morom donc bokk ndey bokk bàyyi famille la boo xamante daal famille bu am solo la si ñun juboo am na bëggante am na parce que nit tamit boo ko bëggul doo mën a yàgg bëggante rek moo fi am waaw ku ci gis sa morom gën koo bëgg loolu la. damay des ci relation yi rek lañuy des ba léegi bi mu bëri ak Tafa Gueye Aziz Ndiaye moo andi Tafa Gueye Baye Ndiaye andi ko moom est que boobu bi nga gisee Aziz ànd ak Tafa Gueye sa xel daloon na dama boo commencé am dut. non non du ma suma xel du mos am dut ndax boobu Aziz ñëpp xamee nañ ko ak Moussa Faye mu nekk xaritam mu nekk léppam ba léegi nii may wax yoon yi xaritam la léppam la parce que cër la bi mu ko jox cër bu mu ko delloo la Baye Ndiaye cër la bi nga xamante sama diggante moom loolu yàgg na de ma nekk xale ba léegi mais suñu papa ñun la faraloon moo tax yàlla may njab Baye Aale ñun la faraloon donc moo tax teewul boo muy bëree ba pare su guddi gi la ma woo téléphone jox ma Moustapha Gueye ne ma nuyoo ak sa papa ngeen kon nga xam ne kon lu am solo la après ci laa nuyonte moom saafante moom man kon loolu Aziz euh, loolu doon mottali kóllëreem ci diggante moom mu Gueye waaw te loolu lu am solo la nag. Mm-hmm. làmb ji jeex mu ne léegi Tapha la doon supporté Tapha Gueye bàyyi na damay ñibbi si sama dëkk nekk si ginnaaw Balla Gaye numéro 2 mais bi mu nekkee sa ginnaaw ñu ñu bari dañuy seet kersa dafa am sa diggante ak ñoom mm-hmm. loolu lan la parce que kersa bi ci ci relation bi maanaam relation bi mu judd. kersa bi da cee àndale wala da ngeen a dem ba dugg ci yenn détails kersa bi di soog waa xam nga Aziz moom dafa mos a nekk suñu kilifa te bu bu lay woo di waxtaan ak yow lim lay njëkk a si waxtaan ak yow mooy si sa àdduna ak si sa vie parce que tey lépp lu mu lay wax naan la dara continué wul lépp loo mun am defaral lii defal lii defal lii defal lii la l'expliqué ah ba yàlla dimbal nañ wax dëgg yàlla nag juumuñu benn yoon ci côté boobu moo tax dañ ci sant yàlla mais kerse bi moom ci la mës am. bàyyi tey boo gisee nii làmb ba làmb dañuy toog nii waxtaan kaf tuuti rek mais bu weesoo làmb doo gis sax ñu toog parce que dañoo rusante waaw xam nga loolu loolu lu rëy la <laughs> loolu lu la. loolu am na solo Babacar Al Amine. Euh, bon maa ngi jégalu sax ci dàgg bi ma leen dàgg ndax jaaduwul du teggin du yar mais sama rakk ji daf ma defal lu spécial loo xam ne lu ma nit mën a defal lu muy rëy rëy moom li ma defal foor na trop. bi gàmm gi desee fukki fan wala ñaar fukki fan daf ma indil teraanga boo xam ne indil na ma lu mat fukki yére ay bazin riche ñaw ko ba mu yàgg ñawal sumay jabar ñawal sumay papa ñawal suma yaay ñawal sumay rakk ñawal sama doom yi ma am yëpp loo xam ne li ma indil ci teraanga ëpp na ay million bu def ñaw ay yére yu dul am mën naa ko sol fii ba gàmmu déwén xaaruma ko woon ci moom it bu ma ko defaloon sama rakk la su ma ko defalul sama rakk la kon defal bi mu ko defal rëy na ci man lool sànq basin bi mu indi sama papa ak sama yaay bi ma ko xoolee sama rongoñ dafa tuuru sax noonu la defal sumay jabar defal ko sama ay doom kon loolu teraanga la boo xam ne bu ko nit defee danga koy sant danga koy gërëm ba pare mu bàyyi yitteem yëpp ñëw fanaan fii bàyyi ay néegam ñëw tëdd fii ci saal bi kon maa ngi koy sant di ko gërëm di xam ni li tax ma jàpp ko rëccu ma ko moom it li tax ma jàpp ko mu jàpp ma yàlla bu mu ko rëcc maa ngi koy ñaanal li nekk ci kanamam yàlla na dàq li nekk ci ginnaaw li mu passé. parce que li ma la bëgg laaj mooy suñu demee tey gis Balla Gaye koo xam ne parce que mën nañu li ngeen magante set bariwul mu jël décision wu taxaw dafa tout le monde naan Aziz mooy sama papa loolu nu mu lay def ak ban yëge nga ciy am. loolu dafa baax rek xam nga laa biir naa ni Balla mbër mooy métier mais yorul jikko mbër dafa laabir dafa baax loolu xër la rek bu mu xër ci man xër boobu mu xër ci man Balla Gaye man mënuma ko defal lu mu amul waaw am nay këram am na njabootam am nay eh, teraangaam am na li li nit war a am nit ku baax lépp yàlla jox na ko mu wàññeeku jox la cër kon cër boobu yan bu diis la ci man yàlla nañu yàlla sàmmal ba yaakaar gi ñu yàlla boole ñun ñaar ñëpp yàlla bu yaakaar googu tes jox na ma respect jox na ma cër en door de làmb sax dañu joxante cër man ak Balla gay ñu bari xamuñu mun ñam moom ngi moom duñu xoolante ci bët mënuñu sax xoolante ci bët man su may wax ak moom feneen laay xool moom suy wax ak man feneen lay xool loolu cofeel la et relation la yàlla nañ ko yàlla sàmmal buñ ko jàppee affaire u mbër affaire u làmb su ma rakk la ñoo bokk koñ bu ñu juddoo fi mu juddoo man falaa juddoo kon donc man bu dee ci wàllu sport làmb affaire koñ la affaire quartier la man géejawaay laa juddoo fa la juddoo fi mu juddoo fi ma juddoo matul deux cent mètres kon jàppale ko lu war la ci ñun te liñ koy defal xeeb nañ ko lool suñu rakk la suñu nit la en dehors de mbiru làmb da di suñu nit te ñun amuñu lu dul Tiwaawan muy bàyyi yitteem yëpp di ñëw fii di ñu fekk fii ba looloo waral moom su amee combat damay ànd ak moom ba ci raw du Serigne Babacar si deux heures du matin ñu ubbil ko ko dem ci du Seydil Xaaji Malick mu ñaan soxlaam ndax ñun fii la ñu am kon nit nag suy ànd ak yow di dem fa nga am dafa ñaan fa nga yaakaar gàmmu jot mu bàyyi yitteem yëpp jël ay teraanga jox la ko su amee bisam soo ko jàppalewul soo ko taxawul man xaw ma koy taxawul loolu mooy suñu relation relation bu sincère la relation frère la relation dëkkandoo la kon moom ñu ngi koy sant di ko gërëm loolu laa amoon lu ma ciy wax suma rakk la tey suma rakk la ëllëg et j'assume mu nekk suma rakk waaw sama gis promoteurs yi sa mbokk promoteur yëpp xëy ñëwandoo ñoom ñëpp si kër gi en masse yaa ngi dégg loolu tamit mu mel ni Aziz ba tey rek maanaam dafa nekk nitu nit ñi daal lu xew. sant yàlla xam nga sport daf war a boole mais warul taxale ñi ngi fi gis ñëpp ñoo bokk benn génération ay xarit lañ ay nawle lañ promoteur du du du tur loo xam ne benn yoon nga koy def ci at wala ñaari yoon ci at mi bu jeexee da war a am ay relation ay relation yu bien ñoom ñëpp nag dama am ak ñoom relation yu sincère ay relation xarit ay relation frère yàlla dogal na nekkatuma promoteur nekkatuma ci làmb ji di teg làmb comme ñoom mais da ba tey laa am ak ñoom ay rapport yu bien ku ci xew la dinaa dem dinaa wax ak ñoom téléphone ku ma ci mën a jox conseil ak xalaat ak orientation dañ koy échanger ñun ñëpp ñu xam ni sport lañ doon def daf ñu war a boole mais warul taxale kenn loolu laa amul lu mu ci wax fii nag ñëpp ñu fi ñëw ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndax yéen ñëpp da a bàyyi seen kër bàyyi seen yitte bàyyi seen ay néeg bàyyi seen lépp ñëw ànd ak ñun ci guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di sant nag di leen gërëm. mais Balla mbër la day bëree yaa ngi dégg dañuy jéglu si loolu parce que ci gàmmu lañ ne mais dafa dañu gisagul kombaam ñu ngi wax mook booy ñaa ñu ngi wax moo keneen ak keneen yow yaay kilifaam tey ndax validé nga kombaam ak Boy Niang non man. comme ni ma ko waxee sànq rek du teggin te du yar ci man te du ndigal sax ma ñëw ba Tiwaawan di fi wax waxu làmb wax dëgg yàlla ci weeru gàmm rus naa ëllëg mu ne Aziz wax na fa nangam ci wàllu làmb li may wax maanaam lu defar ak mbokk rek laa fi mën a wax